waaw waaw lu xew li yàgg na ci làmb coowal buntu kii mooy dugg kii du dugg yàgg na ci làmb <laughs> ay jamay kee xool bu rafet ngeen maa jéggal rek noo def namu la bay périer sant naa bu sonnoo ci voyage non tuuti rek nga ñëw Gambie làmb indi la fi nga ñëwaat ñëwoon nga bu njëkk diggante Lirou Diane ak ki nga xamante ni mooy wulli tey nga ñëwaat ci signature contrat noo ko gisee. yow dama laa mere waaye naa wax rek ndax sëñ Bas xam nga moom moom sama xarit la da ngaa doy waar. xam nga ba xam lees waxut. <laughs> ah kontaan rek yow nee naa ci làmb la ñuy dox ba tax fu làmb am rek suñuy ànd ak bakkan dañuy dem de du dëgg. mais gis nga ambiance bi am fii bi nga duggee yëg ko loo yëg. mbégte ak bànneex kontaan lool ndax lii dafa dafa bees daal yàlla mi ñu sàkk waa Sénégal du ñu ubbi làmb ji wala waruñu ubbi làmb ji xoolal li doo xalaat xalaatoo couvre-feu xalaatoo yaa ngi ambiance SNS da lay sori leen loo xam ne yaa ngi koy xalaat waaye ji li nañu waxante dëgg. gàmm <laughs> bi de takk fi masque sax délai la. non la doo gis sax ku ko laal yàlla ñu yàlla daal mooy musal yàlla ñu yàlla musal ci corona activité yi commencé tax tamit sonn nañ daal. sonn nañ daal baay jiili. maa lay nuyu. maa lay bu baax baax. tur bi Malick. Malick nga bokk ci staffu Fallou njaay Ndiaye production. <laughs> waaw maa lay ziar gayen bu baax a baax a baax a baax di di nag bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama soxla di ko wax euh, bon fête di ko ko wax ni bonne euh, bonne bonne fête awuma fayam nag franchement quoi maa ngi koy encouragé moom bu baax a baax a baax ne ko mu jàpp fu mu jàpp foofu la. waaw ji la déglu nag quoi. tey ngeen ñëw organiser fas yéene organiser làmb Gambie euh, ban lan ngeen koy waajee ak nan ngeen ko fas yéene liggéey. waaw sant yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax di suñu frère jam di ko di ko encourager di ko xamal ni bés moom du tuut borom lay tollal quoi franchement xolam xolam la ko suñu borom suñu borom fay ndax moom ku baax la quoi lii rek lii dong la mën la mën a am quoi. ñun nag ñu ngi waaj quoi le 27 le le le 28 incha incha allah face à face quoi di si woo ñëpp nag fran franchement quoi kontaan naa trop nag. ñoo far. Lamine maa lay nuyu. maa ngi lay bay jili sant yàlla bu baax. li nga def ci sañ sa macha allah. merci merci merci merci merci. noo gisee làmb tey Gambie ni mu mel. Euh, bi nga dugg see gis stade bi ni ñu ko def ak fi lamb toll ak fi lamb toll Sénégal nan nga. kay laay def li ñuy wax cugur rakkaaju bi ma duggee damaa rakkaaju at a ngi nii dunduma ambiance bu mel nii at at lii rek yaakaar naa ne sénégalais yi war nañ cee def benn jàngat ba ubbi nañ suñu lamb ji ñi ngi wax huis clos mais huis clos tamit yaakaar naa ne ñàkk pexe moo ci war a dugal mais comme lambi lambu Gàmbi ñoo ngi tëgg ni ñuy def ba organiser ba tëgg Sénégal war nañoo mën a def loolu wala ñu def raw loolu. ba ba ubbi làmb ji vraiment namu nañ làmb trop trop bàyyi ji. bi nga moomoo ngom sàjje. yëg ko xam na ne damaa kontaan ba ñaanal ko. billaay dafa damaa namu tàkkusaan am na surtout comme ni ma ko waxee keroog rek dafa am xamante ne damaa namu seen tàkkusaan ci làmb. ñu mel nan. non bu ma tuddee am nga làmb ak ni mu mel. mais am na ñoo xamante ni namu naa torop torop torop seen tàkkusaan ci làmb bu ñu dugg see ci làmb ji ba nit ñi bëre. di daan dañuy dañuy def ambiance ñooñu namm naa leen Moumou Ngam tamit namm naa ko xam nga ni combat guy gi ak Reug Reug ambiance la ba lamb si jeex Moumou Ngam moo fay teew billaay wallaay jamaïcain loo koy wax gën a encouragé mu gën a organisé wu yaakaar naa ne osé moo ko may li mu am yëpp lambu Gambi dafa am leneen loo xamante ne jamaïcain yokku nañ ko ci kon waa Gambi nañ ko gën a gestu nañ ko gën a jàppale mbëri tamit nañ ko gën a jàppale parce que ambiance mu leen di jox vraiment amul benn promoteur bu leen ko jox gun waaw jaajëf lam nga jógee Sénégal ñëw Gambie euh, lamb dafa mel ni léegi dañu ko mujjee génnee ba fépp foo xamante ni ñu ngi fay séntu làmb rek pare ngeen pour yobbu ko waaw mais tey suñu yaram dafa daw xam nga li lañ ko nam nag te yaakaar naa liñ gis fii vraiment bariwul sax luñ koy gis Sénégal ci genre yu mel nii mooy discipline bi yar bi vraiment te ñëpp dañoo dagg bi ah pour ñëw séance signature contrat kon tey jàpp naa ne lii du caaxaan kon Gambie mu ngi ci beneen level boo xamante ne nii bu Sénégal deful tratation rek dina demee neneen ci làmb ndax vraiment liñ gis fii day dalal xel ba bay di encourager promoteurs yi pour ñu mën a ñëw ndax promoteurs yi lay wër promoteurs yi ay businessman lañ li ñu yëngu ci wàllu business la tey bu ñu gisee business bi gën a doxee Gambie dañuy déplacer ay moyens pour ñëw Gambie pour investir fi ndax it nag làmb rek moo ñu te vraiment liñ gis fii dafa dal suñu xel trop di am mbék it bu baax di wax jamaïcain vraiment mérite woon lu mel nii ndax yaakaar naa boo xoolee ni fii ñu nekk mel fi ñu nekk boo gisee ni mel nga gis mbooloom fi teew nga xam ne tey jii làmb ja ku ñëw di nga gis leneen kon lii mbégte la di ko ñaanal yàlla mu am fekke ak tal ba suñ boom àggaleel ko li nga xam ne moom la bëgg yaa waajal bis bu Gambie muy lutte euh, sans frappe mu doon lutte traditionnelle boo xamante ni yaa ngi koy waajal ak sa staff ci nan ngeen koy waajalee ak loolu lan la. waaw niñ koy waajalee rek mooy ànd ak suñu ay xale yu nekk fii Gambie ku mel ni Jamaïcain ku mel ni ñoom euh, Lamine Gambia ku mel ni suñu gaay yëpp taxawuñu jàppale ñu di ñu dooleel ba ñu mën a organiser lu mel noonu tey ñu ko jëm Fass di fa teg un million deux cent cinquante lépp rek pour yokk làmb la lépp rek pour mën a génne làmb pour ñëpp mën cee gis seen bopp ndax tey fii boo xoolee sénégalais yaa ngi fi gambien yaa ngi fi kon ñëpp a ciy gis seen bopp kon yaakaar naa làmb daa jot ñu dundal ko fi nga xam ne soxla nañ ko comme Sénégal nag yàlla dogal na mbas mi jeexagul di ñaan suñ boobam jeexal mbas mi rek su ko jeexalee ñu delluwaat suñu activité mais teewul même activité yi dafa am foofu incha allah ñun continuer bëgg nañoo continuer di organiser ay lamb Gambie. bëri door pare nga pour organiser ko fii ci Gambie. waaw dèjà président baa ngi ci ginnaaw ñu ngi waxtaan moom suñu ñu ngi ko jox 4 avril incha allah ñu dëgg fi baa bu mag incha allah. gis nga nday Sam. góoram ngi noonu président des jeunes amateurs. président ma lay nuyu nga jugee Sénégal. ñëw Gambie lamb moom moo yëkkati la moo ne ne président tànk yi nga taxawee mooy taxaw lamb mu jëm ca kanam loolu lan la. waaw mais sant yàlla rek mon frère di kontaan vraiment ci suñu frère bi nga xam ne mooy Jam Production invité ñu tey jii ñu déplacé wu jóge Sénégal ñëw Gambia li nekk c'est une première mu nekk lu neex ndax lii Sénégal daf ko namm ñun dañu nam ambiance dañu nam làmb parce que ñun ay amateur lañ làmb rek moo ñu dundal tey vraiment ñu ngi sentir sax ne lii moom dootuñu fi gëj parce que ñun dañu nam làmb xamuñu lu dul làmb suñu frère indi ñu fii muy jamaïcain invité ñu mais vraiment tey lii retrouvaille la ñu ànd aussi tamit ak suñu frère muy nga xamante moo Modou Baye Fall en tant que sponsor nga xamante ni moo jiite Xelcom automobile muy garage bi nga xamante ni instant bii nii mooy xew jamono di def euh, vraiment lavage di def entretien en même temps aussi def location de voiture nekk aussi tamit vraiment partenaire ci bis bi nga xamante ni mooy le 28 ci diggante Leket Baara ak ki nga xam ne mooy France ñu ànd ak Mor Parcelles ak effectif bi yëpp vraiment loolu moo waral suñu teewaay. mu mel ni fi mu toll nii la nga doon mandi la nga doon mar ba nga dugg see gis signature contrat bi ñaari mbër laale rek dafa mel ni sa xol sedd. non sama xol dafa sedd parce que ñun amateurs yi ñun li moo ñuy dundal ñun dañu tàmm ambiance làmb vraiment te lii te yàgg na gisuñu ko depuis bébé Diène ak Fourière ba léegi gisuñu lii waaw moo wane ni làmb dafa dafa dox. tey Gambia ñu ngi def loo xamante ni lii ñun dañ leen ci remercier ndax tey jii képp kuy amateur rek namu nga lii lii bu ko waa jeune amateur yëgee le 28 kenn du leen fi bàyyi bu may ñëw délégation laay àndal ñëw moo tax macha allah. jërëjëf kontaan naa bari ñu ne Boy Balla sa bête noire nga tey nangu yow yaa nday bi li ngi ne du teew ñuy nataal Boy Balla nga ko seq tey yan kaddu. ngay gaaral jëmale ko ci moom tey ndax bés bii mënta yomb ndax amateur yàgg na koy coow. waaw asalaamaaleykum waa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba njaaraam maam Seera Fall waaw gannaaw ma sant yàlla damay julli ci yonent bi di sant samay ñetti waajur bu baax di ñaanal sama papa fi mu tëdd gënal ko fii jugee di nuyu waa Serekunda bu baax. di nuyu waa Sukuta di nuyu waa Banjul bu baax di nuyu waa Bakaw waaw di dem Sénégal di nuyu waa Pikine bu baax di nuyu waa Mbirkilaan bu baax di nuyu waa Thiès di bëgg ñëpp. waaw. waxal sa diggante ak Boy Balla. nee naa la bëre ngeen ñaari yoon bi mooy ñetteel bi. ñii xam ne sa benn noir la ñii ba tey noonu. xale ma bu dee xale mag na. ngay mil. waaye doom yi ngay naan. lan ngay garanti ci waaw li nga wax noonu nekkul li nga wax noonu nekkul. <laughs> loolu du ñu kanam la nekk. dañ du ñu kanam la nekk loolu du ñu kanam la. yi ñi rek la ñu dal ndax ay kilifa ñoo fi nekk ñëpp neen rek la ñu dal affaire du fii. affaire du xër di xër affaire bi góor la affaire bi góor la mais taxaw fii di coow di xeex amul njëriñ ñun ñii ñëpp benn leen ñun mbër yëpp benn leen ñun ñooy mayante xaalis nen bàyyi lii ñuy def ba ñu yàqal suñu bopp ñun yàqaluñu kenn suñu bopp leen du yàqal ñun nen bàyyi lii def ñu jàkkaarloo ñu wax ñu bëree. mbër da nga mbër da nga entraîné. sama diggante Boy Ba lu ma ci wax. mu bàyyi doom yi ne ko bala may wax ak sama diggante Boy Ba la wax ak yi ñii di fay seen xaalis yi ñëw ñuy yàq affaire neen bàyyi nit ñi. mi ne ñu bàyyi xëtt xëtt ji ndax mbir mi yëpp du yàgg kenn yàgg moom la ñu bàyyi la nga nuyoo tontu ci lim wax. bisimilah bisimilah gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant ñaari waajur sant Serigne Touba bu wér ñu bëggee ñu fi teew yëpp di leen nuyu xam nga di jiital nuyoo bi nag suma waa dëkk jaabang aw ma seen fay xam nga waaw suma ma limee damay juum jaabang yëpp ñëw Costerone ak lu baani suma fans yi maa ngi bëggee yi bu baax a baax wiri ngara xam nga ñu ñuy jàppale suma staff bi nuyoo ko jegee bi si xam nga président staff bi Babacar xam nga yaatal foofu noonu mooy loolu noonu waaw ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi sant ñëpp di nuyu ak lu lambo di nuyu tamit xoolal dafa am ñoo xam ne foog ñu bëggee parce que dañoo sonn si ñun te dañoo waajtaay ak ñun waajtaay bu taxu xam nga su may waa jaabang wax naa ñëpp yaa may dégg dinaa ñëw si combat bi foog ma wax ñu may jàppale xam nga garant suñ président écurie mu ñuy jàppale bu baax a baax su ma gars yi àll ba kani laay aw ma seen fay Casamance aw ma seen fay xam nga su ma mbokku tukulóor yi su ma mbokku soose yi xam nga maa ngi nuyu xoolal fan def leen ndànk rek maa ngi nuyu suma fans yi ñoo xamante ne ñooñu waa Cissé Kounda famille lañ maa ngi nuyu bu baax a baax a baax. ci combat bi waaw ci combat bi. di wax nag xoolal seen doom la booy baala is back. di bëgg waa équipe bi yëpp di bëgg ñëpp képp koo xamante ne rek soo noonu booy ci rek. maa ngi koy bëggee ba pare tamit suma papa Matar Diadio maa ngi koy bëggee bu baax kooku dama ko jàpp papa Matar Diadio. ñu ngi koy bëggee bu baax ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguñu tudd seen tur yi. loo wax si Builder. waaw xam nga xam wax ji du mun bëri parce que foog na maag moom xamante nañ bu baax. waaw maag waaw am na fu jaar ñëpp xam nañ ko. premier combat bi daan daan naa ko Koungheul jàng benn andi ko Westfield daan ko ñaar stade laa koy yóbbu ñetteel bi mu mat. Lamine dama eh dama bëgg nga xam benn affaire mooy. billaahi wallaahi combat bi combat bu ma respecté la te bu ma dalee yu ma des ci combat mosuma ko daj ci combat bi kon nag na xam ne combat bu ma respecté dafa yéex lool. dafa yéex li mu dafa yéex man bi ma ko dafa yàgg te man xale laa te damaa màgg. am na lu may maye. Eh, man Amadou ma lu may maye de. gis nga fii rek man ragaluma loolu barki yonent bi. nee na dala mhm. ko daan mu daan ma bu dee ma daan ñaaroon yàlla ma amaa ndam ci kawam bu dee ñaareel la ma daan yàlla ko ñetteel kii dama daan ñett ñaari yoon ci benn taakusaan kii xajuma ci moom man damay wàññi poids ndax moom kii. damay xëy di daw ba ngoon ndax moom man dinaa yokk poids di rey nit man damay damay daw daw damay daw ngir ngir wàññeeku ngir tolloog moom bëre mën a bëreeg moom entraîné lu ma dara lu dul daw kese daw kese lay entraîné te bu suur baa lay na wuti doole ndax bëggoon mu Moussa booy Aliou. dafa ngi bañ ko gisee liggéeyam te building loolu la wax neex nee na jaraloo ko daw ba bés ba mu daal la. maa ngi koy jaale sax moom dégg naa dafa am dëj ah. dëj ah waaw maa koy jaale bu baax a baax. yàlla xare àjjana ku xam nga waaw waajuram bu góor boobu génn yàlla xare ko àjjana bu loolu weesoo mooy man bil amul ma koy wax. non parce que man période moo ni man waruma fee nekk sax di wax man dama war a dama war a wane si moom laa koy wane. nekkatuma fii di wax wax ju bëri damay gërëm rek xam nga di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm képp koo xamante ne nii yaa ngi doon jàppale booy Balla ah maa lay bëggee bu baax a baax. ñëpp jërëjëf waxal Paa mille Paa mu yeggali bu baax. di sama yaay sama ñaari mama yi maa leen di ñaanal dina yu bëggee bu mag suñu kilifa dina yu bàyyi murit taata ak papa sama ñaari yaay yéen toog kiwi sama ñaari yaay yi ñoom ñëpp kiwi leen leket baara moo yor a France toj nañ nag foofu ton ndeysaan leket baara moo war laaleeg France leket a noonu di dugg si Leket a ngi noonu di dugg si. di jaajëfal waa xam-xam oto ñu ngi koy lalal poftan. jàpp nañ si jàpp promotion. cey lam. Oh. sama xel dem na ci dugg si Balla Gaye 2. <laughs> kenn doomu Double Less bi. sama xel dugg si na dem na ci dugg si Ama Baldé kenn doomu Fallaye Baldé bi sama xel dem na ci Gris Bordeaux buy topp barrière yi di dugg si stade sama xel dem na ci ah Modou Lo xale parcelle gi nga xamante ni macha allah bu dugg si ci làmb nga xam ni naan la ci làmb sama xel dem na ci guy gi sama xel dem na ci rëg-rëg. sama xel dem na ci mbër yi nga xamante ne bu ñu dugg see làmb nga gis ñu sotti ndox nga gis ñu yor poflon Yaxya Jóob Yékini moom Moustapha Gueye nga xamante ni dañoo mën a bis mën làmb ndeysaan làmb tey jëlee nañ ko parcelle làmb tey jëlee nañ ko Sénégal làmb tey jëlee nañ ko Pikine làmb tey jëlee nañ ko Mbour làmb tey mu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy Gambia ndeysaan ci diggante Leket Baara ak France jam production moo fi woote xoolal ma lii Leket am na lu muy xaar Leket am na lu muy xaar cey lam déglu ma waay sabar nga si mamo déglu ma mamo mamo déglu ma mamo ay cë ndeysaan Doudou Faye ndeysaan leket lu muy xaar coow li yàgg na ci buntu stade diw mooy dugg diw du dugg faye ko xaalis mu dugg Balla Gaye ne amoon na fa Abdou Aziz Ndiaye moo mujjoon a fayal képp ko ànd ak Balla ñoom ñaari xale yi France gisaguma ko waaye mbokk actuellement nii may wax ak yéen stade Diop bu Bakaaw foo sànni mbàtt mu takk ndax bis bi nga xamante ni jam production woote na ko ndeysaan làmba ngi noonu làmba ngi ndeysaan li may wax ak yéen di mbokk yi 23h21 moo jot ñu ngi fii ci Gàmbi mais fi mu nii ñi nga xamante ni ñoo war bëre grand combat bi dox ci diggante Leket Baara ak France. ndeysaan Leket a ngi dugg. tegal nañ ko poftan jéggi na ci cey lamb na ci leket baaraa ngi noonu di jóge ci poftan sukk na bëtu ëmba ma ngay léemu laal na ci suuf ndeysaan léemu na bokk na ci lamb réew moo xar fa xuufa waaw sëñ Bas. Fafano di Gerdes Kai, Pemaria! gonderi galla safano dike e bal mario beso gonderi galla safano dike e bal mario beso gonderi galla safano dike beso gonderi galla beso gonderi galla Okay. Whoa, whoa. Légat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu jógee Sénégal ñëw Gambie ci affiche bu mag dox sa diggante ak France tey signature contrat bi bi nga dugg see gis stade bi nu mu mel lan nga yëg. waa di sant yàlla bu baax baax di kontaan si yéen bu baax si jéego yi ngeen jóge Sénégal ñëw ba fi fekkee bes bi am nañ si kontaante bu baax a baax waaw bu ma ñëwee dugg gis stade bi nii su ma xool dafa tooy parce que ñun lii lañ xam si lii lañ yaroo si làmb lañ xam bu ñëwee gis làmb mbas mi nekk si bi ñëpp xam nañ la demee. mais bu ñu ñëwee gis lii dañuy kontaan kon dañuy gis ne suñu làmb mu ngi am yokkute bu baax a baax a baax. supporters yi bi nga dugg si dafa mel ni gëm-gëm bi ñu am ci yow amuñu ci yow sago bi ngay dugg si bunt bi ni nga dugg see ni ngay génnee lépp loo def damay mel ni ku gis Modou Lo buy dugg si làmb stade Sénégal. dëgg la comme dañ maa xam te dañ ma am yaakaar bu rëy si man te man taamu ma leen di jox gàcce moo tax tey bu ñu ma gisee rek seen xol day tooy parce que am na suñu jógee te am na luñ bëgg jëlaat tamit soo man saa lu may bëri rek su ma supporter moo tax may bëre mais du la keneen ak keneen bu dee supporter parce que dafa métti ni da lay bugg te yàlla tax di sonn si te doo ko xam kon boo ñëwee rek wala fu la fayda ak jom si ñoom mais. su combat France lan moo koy gagné. combat bi su soobee yàlla ak yonent bi si kattanam ba mbaaxam combat bi suma combat la. lan moo koy gagné xeex wala bëre. ah lu koy gagné non lu laaj rek bay gom naa si bëre lay jeexee gom naa non man mboru mbapat laa dama ko yàgg a wax boo ma gisee ni si jëmm da nga waaye mboru mbap ku ko xam xam ne doole la yore yee France mënut a jaar fenn ba ëpp ma doole. bu dàq xeex. yëpp maa ko dàq muy bëre muy xeex yëpp ko dàq. man maa ko ëpp parce que man doomu séeréer la te mboru mbapat laa. ku ëpp mbokk. loolu waxaale wuñ ko sax ba bés ba incha allah si combat ba. jërëjëf waroon ngaa jël sa micro bi dugub bi Sénégal bu am dalaay ba eh, eh, Fatick Sokone dama fa jël làmb dama fa mbapat di jël ay làmb ginnaaw moo gën a dama faa jël poids soo kon waroon ngaa jël sa di laajte mbokk yi man maa ko ëpp mbokk. jaajëf lekk kontaan naa si yow. ma nga ñoom ñaar ñoo war laale. waaw lii doon waaw lan lan ma door. laa ilaaha illallaah. France dugg si na. dañ koo boot. lii lu mu doon eh lii lu mu doon eh lii bokkul ci liy defar làmb nag kii di sotti xorom si leket ak France eh signature contrat bi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi noonu dañ koo boot buusu na ndox bi buusu na ko moom France buusu na ko li yàgg na ci làmb boo nekkee Sénégal gis dugg si Modou Lo ci làmb nga xam ni li yàgg na ci làmb boo nekkoon Sénégal ba gis dugg si Balla ci làmb nga xam ne lii yàgg na ci làmb dayo bi yàgg nañ koo dund ndeysaan français ngi noonu sol benn mbaxana bu xonq ñu boot ko mu mel ni bis bi tey boo ko xoolee da jàpp ni sax kii tey la war a bëre cey làmb coow lay commencé waaye ci coow lay jeexee làmb ngi noonu sëñ Basiiru làmb gàmbee ngi noonu lu ne dóor lañ ma lu ne sotti lañ ma ko tey làmb le volant français gi nii ndeysaan xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb xale la boo xamante ni waa Gàmbi gëmewuñu ko ndeysaan làmb ngi noonu boot nañu ko boot nañ ko France ngi no bopp ba rek ngay seen ak mbaxana bu xonq ba ndeysaan supporter yaa ngay wax ñii di wax lu ñaaw ñii di wax lu rafet ñii ji dem a déstabiliser ki nga xamante mooy mbër mi waaye lii nag bokkul ci luy defar nañ leen génn mañ lii bis la boo xamante ne bis bu mag la lii bu ñu ko defee est-ce que bokkul ci liy yàq signature contrat bi waa France ngi noonu jóg taxaw yëkkati na loxo ba France ngi noonu am na lu mu seex meew la buusu na ko tey làmb am na lu mu raayoo mais nag ñii ci suuf ñëpp dañ fay war a jóge vraiment ñii faw ñu jugee fi may ñu ñu def suñu liggéey ndeysaan émission bi lay nuyu ñu jóge Sénégal ñëw ba Gambie ci affiche bu mag nga war a bëree ak leket nga dugg si bi ñëpp jug taxaw lan la. sant yàlla rek di julli si yeneen bi amal ñëpp jàmm yéen a ñëpp jàmm kese barke Serigne Touba kese loolu kese la du dara waaw. bi nga dugg see bi ñëpp yuuxoo loo yëg. sant yàlla rek. sant yàlla rek di ñaan yàlla suñ borom may ñu ndam lu sedd guy waaw incha allah. yàgg leket ci xeex wala ci bëre. ci lan la yombee. ñaar yëpp damaa xeex si. damaa xeex si. ñaar ko ëpp doole. maa ko doole maa ko ëpp doole. moom nee na moo la doole. legen mag la. legen moromu ñoom moomu ñoom bato Sénégal ñoo doon man xale bu ndaw laa. barki Serigne Touba. dàq xeex. maa ko dàq lépp. kopp mbokk. lépp maa ko ëpp lépp. kopp gàllaaj. maa ko ëpp lépp lépp lépp tënk na téere lépp. barki Serigne Touba bis ba lépp dina leer. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom nag mu may ñu ndam ci kàttan suñu borom dénkoon ne la bu ñëpp déplacé woo jugee Sénégal ñëw fu waay jugee ngir ñëw yëkkati làmb Gambie sa diggante ak leket pare ngeen samp jaaga xeex cinq minutes wala dix minutes. du xeex leket du xeex man maay xeex waaye moom du xeex licencié daal li ma koy dénk bu ko seetaanee na dem jàng na wut garde rek na wut garde te xam ne garde bu heure bu wàccee rek maa ngi ci kawam barke Serigne Touba. yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. dégg yan mbëru Sénégal ngay kontaagal. non man instant yi kontaan gu ma ak benn mbëru Sénégal di bëgg sama waa ji nag Serigne Ndiaye bu Faas maa ngi koy sant di ko ñaan. waaw yóbbante ci maa ngi koy siyaar di ko ñaanal jàmm lu mu dugg rek. yàlla na ci am tawféex barke Serigne Touba maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal mbër yëpp nag di ko ñaanal géejawaay dama faa dem préparer combat ñu jàpp ma di ñaanal mbër yëpp di ñaanal ñëpp jàmm man damaa nekk mbër moo xamante ni comme ni ma koy waxee dama me damaa yor jikkooy Balla Gaye yor fulla ji si Modou Lo barke Serigne Touba. noonu la daa mel ni junj la wax la. wax laa la wax waaw. cey <laughs> France